ñu xam ne lislaam diiney jikko ju rafet la yàlla sunu boroom dafa digle nañu wattul nit ñi seeni der ba ñu xotti seen warma moo xam ci wax walla ci jëf ndax xotti warma dafa bokk ci li nga xam ne day indi noonoo indi bañante diggante jullit ñi ak doomu aadama yi ñu xam ne ngëm yàlla yit dafa war a nekk ci cër yi ginnaaw bi mu dëggoo ci xolu ñi nga xam ne ñoo ko gëm bu nekkee ci cër yi nag dafa war a feeñ ci jëf yi feeñ ci waxin yi feeñ ci def ndigal yi feeñ ci bàyyi tere yi loolu mooy tegtale ne li nga wax ci sa xol li nga wax ci sa làmmiñ gëm ko ci sa xol dëggu na ci yow nañu xam ne yàlla ku araamal tooñ la ci lum mën a doon moo xam ci alal wala ci deru doomu aadama te wuññi ñi sutura doomu aadama dafa dàqonte ak maandu yàlla sunu boroom tëkku na ñi nga xam ne loolu mooy seen mbir suñu xoolee nag lu lu bari la ci jamono ji ñu toll egg na ci kër yi diggante boroom kër ak soxnaam kenn ki bu meree mën naa daal daal di tasaare la ñu séq moo xam léegi waxukaay bari na ci internet bi walla fu ne mën naa nekk ci diggante ab directeur ak ñim jiite mën naa nekk ci njiit ak ñim jiite mën naa nekk ci ñiñ jiite jëmale ko ci ki leen jiite loolu lépp yàlla sunu boroom daf ñu koy bàyyiloo xel ñu xam ne diine du ngëm kese kese kese si xol waaye ngëm gi dafa war a feeñ ci jëf yi ci eh, sa diggante ak doomu aadama yi war na ñoo xam ne tamit lislaam ba tey bëggul ko xotti warma sa mbokk jullit bëggul ko jël sekreem tas ko ci ëtt bi ci penc mi ba ñëpp jot ci bëggul ko jël bàkkaaru diw di ko siiwal bëggul kuy commerce tamit ci bàkkaaru diw loolu lépp nañ ko bàyyi xel dafa bëgg daal doomu aadama bi ñu ñoŋal deram fu ñu mën a toll bañ koo def marchandise mu ñuy jaay ak jënd bu fekkee ne nag lii xew na li ci gën a yéeme mooy day weesu kiñ ko wax day weesu kiñ ko wax dem ci njabootam jóge ci njaboot gi mën naa dem ba ci giir gi mu bokk mën naa dem ba ci réew mi mën naa dem ba ci société bi ñu leen koy xoole fekk dara amu ci dafa am ay benn benn yoo xam ne ñoo koy doxe rek doonu aadama yët dana yegg ci wàllu complex am na ci jëf yu bari yoo xam ne yu siiw la nit ñi di ko tasaare ay mbóoti jàmbur complexe moo koy jur wala defe ne li nga nekke dañ la ko teg waaye doomu aadama bi jullit bi dafa war a gëm yàlla gëm dogalam terewul nag muy fàggu di wut lu lew waaye bu yàlla dogalee ci moom fi mu yem mu xam ne foofu la ko sunu borom yemale moom amu ci benn tooñaange wala benn yeddaange ñu xam ne tamit am na ci nit ñi ñoo xam ne danañ sosal doomu aadama waxal ko loo xam ne dara amu ci waxal ko loo xam ne dara amu ci indil ko ay ayib yoo xam ne dara takku ko ci waaye loolu lu yéeme la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne wax ñaar yi rekk la su fekkee ne ki nga wax ci moom li nga wax dëgg la te nekku fa yow da nga koo jëw bu fekkee ne jëwuloo ko li nga def da nga koo duural te loolu yëpp ñaar yëpp lislaam da koy tere kon jaami yàlla yi nañu xam ne lenn ci nit ñi daal dara yitteelu leen lu dul topp mbooti ñan ñi ci ñoom di ko xool di ko càmbar donte day laaj jënde xaalis sax ñu jënde ko xaalis pour jekkoo ko fa suñ ko bëggee te fi barab tee ko foofu waaye loolu lislaam ŋàññi na ko tere na ko nañu xam ne tamit bépp doomu aadama boo xam ne jullit la su mbokkum boo xam ne neexu ko na ko suturaal waaye na ko ñaanal an zahri xayb foo xam ne kamiy ñaanal sax yégu ko waaye mu ñaanal ko rek yéene ko lu baax daal di su ma sañoon dey mu jub maa ngi ñaan yàlla sunu boroom mu nëbbal ko sutura soosu te jubal ko jullit loolu la war a defal moroomu jullitam am na xadiis bu gudd boo xam ne yonente bi da ci doon wax ak Muaz ibnu Jabal waaye boo ñëwee ba ci catu xadis ba yonente bi dafa wax Muaz ci waxinu arab sakilat ka ummuk may yàlla na nga dee ak yu mel noonu xeet xeeti kaf lay doon ne ko xanaa xamoo ne Muaz bari na ñoo xam ne yowmal xiyaam seen cati làmmiñ yi moo leen yóbbu sawara loolu kon tam lu ñu war a bàyyi xel la kon yow mbokkum jullit mi bul nekk koo xam ne da ngay nëbbu sa ay ayib di wane ayibi keneen ni ko cheikhul xadim waxe lisaanuka la tazkur bihi awrata mri'in fa indaka awratun wa linnaasi alsun bul jël sa làmmiñ wi rek di ci tudd awra yi ñi ci des na nga xam ne yow it am nga looy nëbbu te nit ñi tam am nañ ay làmmiñ loolu ñu war a bàyyi xel la ñu ne cheikhul xadim mas naa bis génne benn baat bu ñuy tudde baatu warma di ko jàngal taalibe ya fa nekkoon daal na leen dama leen doon defaral téere tawxiid boo xam ne ci wàllu aqida la jëm pas-pas seen digganteeg seen boroom waaye benn baat rek la boo xam ne bu ngeen ko jàppee mokkal ko di doxe ko jaratul ngeen di xool leneen mu ne leen baatu warma mu ne leen warma na ngeen fexe ba seen digganteeg seen boroom ngeen defar ko ba mu jag ci def ay ndigalam bàyyi ay tereem ñaareel bi sa diggante ak diggante mbindeef yi nanga nga fexe ba loo bañ ku la ko def bu ko def keneen ñetteel bi mu ne sa diggante ak sa bopp loo xam ne bëggoo ku la ci fekk bu ko def moo xam ci feeñ wala ci ak nëbbutu mu mel ni loolu bu ko nit ñi doxe woon yu bëree bari ci mbóot yi ñuy tasaare dana wàññeeku am na boroom xam-xam bu wax lu am solo ci bunt boobu mu ne sa mbokkum jullit wala doomu aadama li ngeen seq ñetti mbir rek la soo ko munta jariñ bu ko lor soo ko munta bégloo bu ko njàqareeloo soo ko munta tagg bu ko ŋàññi yooyu yëpp tamit ay bunt la yoo xam ne ci loolu la jëm ah, ay ndénkaane la am na ku ci wax ne booy sàkku dund gu set te mucc fii ci àdduna ci ay lor te bëgg sa diine jàkk bari lool sa der ñoŋ lool mu ne kon bul wax mukk ci sa làmmiñ wi lu ñaaw ndax nanga xam ne koo wax lu ñaaw xëy na am loolum xam ci yow te bu ko waxoon du baax ndax nit ñi it am nañ ay làmmiñ nanga fexe ba sa bët bi tamit bu ci xool ayibi kenn bu ko bët bi gisee wëlbatikul wax ak moom ne ko ee eh, yow bët xanaa xamoon ne lii nga gis am nañu ko gis ci yow bu ko defee da nga xam fooy taxaw ci loolu mu ne nanga dund ak nit ñi ci dundin wu ànd ak njëkk ak teraanga ku la tooñ na ko baal Um, donte doomu adama yi am na ñoo xam ne munoo dund ak ñëpp ndax loolu ku ko def sax am noo mel waaye ñi nga xam ne mënoo dund ak ñoom tàqalikoo ak ñoom waaye na nga ko def billati hiya ahsan si façon bu gën a rafet loolu ay ndénkaane la yoo xam ne yëpp dafa jëm ci wuñ ñi suturas doomu aadama yi nga xam ne jamono ji lu bari la lool ñenn ñi di ko pookureloo ñenn ñi di ko def ay fonds wu commerce ñenn ñi di ko def ay chantage te loolu lislaam bëgg ko donte nit ki mi ngi dem ci jumaa yi mi ngi dem ci jaamukaayu yàlla yi mi ngi jaamu yàlla ci nëbbutu waaye bu fekkee ne làmmiñam yi yeneen nit ñi mënuñ cee mucc day mel ni lu baax lu mu def jaamu yàlla gu mel ni yor mbuusum ndox yor ay dëkk di ko bënn la loo ci def mu yureeku kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax mbooleem nit ñu baax ñi dañu daan euh, faral di beru sax ak di noppi rawatina fii nga xam ne fii la jamono toll ci waxtu wii nga xam ne jumtukaayu wax dafa gën a bari nit ki mën naa wax te kenn du ko gis mu tasaare loo xam ne nii dana jommal doomu aadama yi te yàlla xam na ne buñ ko càmbaree du nekk lu kenn xam du nekk dëgg donte dafa nekk dëgg lu ñaaw lay doon te yàlla sunu boroom bëggul wax ju ñaaw ah laa yuhibbu llaahu aljahra bis suui min alxawl illa man zulim am na loo xam ne daal jullit waru koo def doomu aadama sax waru koo def diggante ak doomu aadama waaye rawatina jullit ak mbokku jullitam yallaahu yaa muxallibal xuluubi xallib xuluubana anil uyuub wa agrina bi xubbi kulli muslim wa najjina min sharri min sharri kulli mujrim wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yawmi ddin walhamdulillahi rabbil alamin